ñaanal xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér ñaanal it suma Serigne Cheikh Ahmadou Rafa Mbacké Falelu mu yàgg fi loolu te wér euh, effectivement comme ni nga ko waxee tey ñu ngi woon fii ci gaaru routière bu Touba ci bis bi nga xam ni ci lañ leen autorisé pour ñu ubbi pour war a mën a commencé waat seen liggéey ci seen secteur muy ci secteuru transport yàlla dogal nag euh, mu amoon ay mesures yoo xam ni dañ ko jëloon mu àndoon ak it euh, li tax ñu libéré leen pour ñu mën a nekkaat ci seen trafic muy le port de masque di ay mesures d'accompagnement les gels et tout yàlla dogal nag bi biñ ci waxtaanee ak suñuy kilifa waxtaan ci ak comme ni nga ko waxee le ministre Alioune Sarr nga xam ni toujours moom il est au chevet des populations mun nañu woon lan ngeen xalaat ni moom ngeen bëgg pour ku leen ci jàppale ndax ñu it réew mi ñun ñëpp ko bokk solidarité gouvernementale dafa war a am du caaginu rek diw moo yor le secteur du transport kon kenn ku ci nekk fa nga nekk am nga sañ-sañu jàppale sa morom. mooy baat bi nga wax léegi ni sot ci dompat la dompat ci sot la bokk mu joxoon ñu lu war a mat ñetti téeméeri masque pour ñu war ko indil la gare routière de Touba pour ñu accompagner leen loolu nag su ko mënee c'est grâce au gouvernement c'est grâce au président Moustapha Niasse mais également aussi c'est grace au président de la République Macky Sall mi nga xam ni tey moom la yàlla dogal natt bi dal ci am réewam ñuy wax ni nag lii bu ñu leen libéraliser comme ni ngeen ko waxee dafa am loo xam ni yéen seeni responsabilité la ndax le secteur du transport fait partie des secteurs phares pour le développement de notre Sénégal kon am na ci loo xam ne il faut que ngeen encadrante waxtaan te xam ni chauffeur métier bu noble la ndax le président de la république bu bu chauffeur amul du déplacé wu mais la xalif général bu chauffeur amul du mën a déplacé wu kon donc chauffeur doon na métier bu noble donc bëgguñu it ngeen accepter ay nit ñoo nga xam ne c'est des mal intentionnés ñëw di yàq seen secteur ba bu ëllëgee ñu jàpp ni yéen yéen a mel noonu alors que chauffeurs yi nit ñu civilisé lañ ay nit ñu civilisé lañ bërki démb li fi xew ku ne gis na ko muy ay nit ñoo nga xam ni dañu woowe seen bopp ay transporteur wala woowee seen bopp ñoo xam dañu bokk ci secteur bi mais seen secteur dañ ko infiltré ñan ñoo ko infiltre c'est des mal intentionnés ndax doomi dëkk bi di doomi Touba ku ko xam xam ni xamut def lu bon ku ko xam xamuñu xamuñu def lu ñaaw li ñu xam mooy dem daayira demi cant organiser wu dem liggéey bañ nañ ko ba heure pause fu mu jotee ak fu ñu mën di nekk yaa ngi gis ñu ngi séddoo ay dolli xasida wala ay dolli kaamil di wàcc ay kaamil ci dëkk bi noonu la doomi Tuubaa mel ab dëkk nag bu raxee il faut ñu xam ni dafa rax ñu jël ci ay responsabilité waaw ñaawlu nañ ko lool nag comme ni ko sëriñ Muntaxa naqarloo mais it ñu ngi ko ciy jéggulu bu baax di ko xamal ni rek euh, sëriñ Touba sax bisam bi mu gën a fonk muy màggalu Touba ñu baax da ciy ñëw saay-saay si randalit dañ ciy ñëw kon nit mënoo maase am lu baax ba pare lépp doon lu jag ku ne xam na ni Touba li fi xew barki démb mérito wuñ ko moo tax lii ñu ngi engagé wu nekk ci seen côté du ñu leen bàyyi danañu taxawit gën leen a jige ñu encadré fexe ba jàngoro ji yem fi mais it bu yokkit yàlla bu mu bokk ci seen secteur ndax le secteur du transport dafa sensible comme dafa sensible nag il faut que ñun ñëpp ñu joxonte loxo fexe xeex ko donc euh, waaw gis nañu ni wax dëgg yàlla ñoom administration bi nga xam ne ñoom ñoo yor gaaru ceer bi ñoom ñu ngi ci mesure yëpp ndax gis nañu léegi oto yi nga xam ne dafa am ci benn dëkk bu ñu jugee woon seen document ba mu amee na mu mel ñoom dañ ko daal di woote foofa pour ñu corriger ko loolu nag mooy solidarité bi am entre les gares routières fekk nañ fi vraiment en disposition boo xam ak dispositif boo xam ni wax dëgg yàlla amuñu lenn loo xam ni war na mën a tax nag ñu tiit ci xanaa kañ di leen dolli góor góor li ba bala fi oto génn nit balaa ñu naan Touba lu jóge wala dara ndax it dafa weex donc oto bu amul assurance ñu jàpp ko mu naan Touba laa jóge wala oto bu amul visite technique ñu jàpp ko mu naan Touba laa jóge yooyu yëpp na ngeen ci jël ay matuwaay ngeen waxtaane ko ba kenn ku ci nekk bala ngaa départ ndax Touba est une ville exemplaire boo xam ni lu ñu ni fa la jóge rek nit ñi dañ koy daal di am nuñ ko téye te loolu it dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy daw lii daal mooy li nga xam ni moo taxoon vraiment ñu ñu ñu ñëw fi tey profito rek di sant Serigne Bassirou mi ci turu kilifa yi nga xamante ni sii ñoo ko yónni parce que dañu wax ni ndaw lu nekk rek daraje ka ko yónni la amee kon ñu di ko nuyu di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla lépp li nga xamante ni sii rek moom lañ yaakaar ci euh, defar seenum réew yàlla jàppale leen ci comme ni ma ko waxee woon sànq domp ci sot la bokk te vraiment ku la jox ndékki bu la nee di nga añ war nga koo gëm te kon liñ fi indi néewoo bari xeebuñu ko parce que ku la yëg rek moo lay defal lii euh, donc kon li mu wax ni ñoom dinañ nu tàllal loxo jàpp leenu ba lépp loo xamante ni si luy xajamal la rek wala muy yàq suñu secteur bi euh, du am kon loolu vraiment ñun amuñu seen fay yàlla mi nga xam ne daal moo am fay yàlla na leen fay ba ngeen am réussite ci li nga xam ni moom ngeen sémb pour liggéey ko ci réew mi jërë ngeen